daki fariyo ya daki funu yendo bila waxtaane do fañaa di amal teranga te xam ni gaañi teranga taxoon ba Bamba am manoore Abdul Aziz Dabakh xalifatul islam bi yot na dara um fu njabootu Seydi Babacar kon waxtaanu tey jëf ju moo di teraanga boo ko teralee dal fu mu tollu di wax sa na yaati neen ci Congo masata gile maa fay njaay kureja maa fay njaay yaat na gile maa fay njaay maa fay njaay xaj damel bi ci pargo mbule mbule bange waaw waaw góor ngoy caale bàyyi ngoy caali alaaji seex mooy sa baayam asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àddina asalaamaaleykum waa diaspora bi asalaamaaleykum àddina wërgal këpp tubaarikàlla macha allah leen ko waxe woon ci émission bu mag boobile deetu kër ndaanaan yi hmm. moo tax tey tubaarikàlla macha allah ngoy caali ànd ak équipe bu mag bii ñëw fekk si El Hadj Modou Mbaye Garmi fii ci Mariste ci këram. Hmm. kor ummi Gueye Garmi. tubaarikàlla macha allah nii rek lay doxee nee naa leen ndaanaan bu ne dina ñëw ci émission bi ndaanaan bu ne dina dugg ci émission bi tubaarkàlla macha allah nag. Hmm. ki nga xam ne moo ubbi émission bi di doom ci El Hadj Baye Ndiaga Mbaye Hmm. papa mbay kàll macha allah mu ñu ñëw tey ànd ak moom fekk si garmi ci këram ci mariste hmm. ànd ak historien bu mag bi le buñ duggee ba ci kanam rek incha allah di ngeen xam tey émission bi tubaarikàlla fekk si nañ daanaan bu mag fekk si nañ koo xamante ni boo ko séenee sa xel dem ci âge hmm. boo ko séenee macha allah sa xel dem ci mag ñi papa nuyu nañ la mbay gale maa mbay joojoog ma sira maa ngi laa fay ajartu Mbaye Thiali gële maa mbay jóge ma ca ñaaxar maa ngi leen ndokkeel bu baax di nuyu mbokku téléspectateurs yi jàkkaarloo ak ñun rawatina télévision bu mag bii nga jóge te jigéen ju yiw encadré ko yor ko ci ngor ak fulla ak fayda di Adja Maimouna Ndour tamit tamit kenn du lim jigéenu jàmbaar yi te doo ko ci boole moom daal xam ne ne daal dëgg-dëgg li takk tubéy mooy mooy takk si mu nekk rek ndokkeel nag bu baax a baax sama ñaari mbokk yu baax yi la dar ñëw fekk si la ci émission bu mag bi di pambay bu alaaji njaga mbay kii ngoy caali baayam alaaji njaga su masaana ànd ak ki nga xam ne kile mooy Madu Faal masaana ànd ak baay bu baax bu ñaan njaay sàmm mbub masaana ànd ak mojob sekk masaana ànd ak dëgg-dëgg mëngoone njaay ak sa baay Cheikh Touré dañ daan nuroo ay yére kii yéen bokk baay kon tubaarkàlla xam naa ne maam lees bu déggee loolu ah. xol bi dina sori lool. waaye dëgg-dëgg ci mag ñi nga xam ne nii dañoo ko woon Ndakaaru. Mm-hmm. ba pare am valeur. doxal ci lu bëree bari gor yu baax yooyu dañu cee bokk. di nuyu itam la grande historienne ñang maa ngi laa ndokkeel bu baax. mu nekk tamit koo xam ne kile bi mag ñi gëstoo ba jàng moom fexe na daal ba nekk ci keppaaru mag ñi ba am lu mu xam. te loolu rek moom solo aji ngoy caali. tubaarkàlla macha allah dégg baay bii. Hmm. nga xam ne yàlla da koo baaxal mu des gor. dégg ngeen li mu wax tey hmm. ci émission bu mag bii ñu naan ëttu ndaanaan yi ñu ànd ak nag télévision 7TV télé bu mag bi la télé qui nous ressemble et nous ressemble hmm. télé bi ñuy nduru ba noppi te duñu dajale tey moo ñu dajale fii macha allah hmm. ñuy jox nag suñu yaay ju baax suñu mag suñu kilifa suñu lépp muy historienne bu mag ñu jox leen ko ngeen déglu ko mu présenté wu macha allah tabarakallah fii ci maa ngi nuyu Sénégal gépp di nuyu réew mi ak bitim réew di nuyu mbooleem ku ñuy toog dinu seetaan tey macha allah ñu nekk fii ci Maristes si kër eh, Alaaji Lamine bay Garmi tabaarikàlla bëgg nawleem lool nekk nit ku baax ndax lii nit ku baax mooy woo sa nawle ne ko kaay ci li may def ñu bokk ko tabaarikàlla te ngoy sama rakk ji jiite lépp mu di ko ñaanal yàlla waaw euh, télé sama doom jooju mu nekk di Maimouna Maimouna Ndour. waaw ah, tubaarkàlla macha allah nii lañ ko lan leen ko waxee woon. ñoo leen ko diggoon. ndeysaan. ni leen dinañ jàkkaarloog yéen ay surprise ci ay ndaanaan. papa. Hmm. macha allah ñuy ay doomi buur géwél. Hmm. ñu yare ñu ci ëtt. Hmm. domtee ñu ci biiri kër. ndeysaan. moo waral concept bi ñu ne ëtt ko ndaanaan papa luy géwél. Hmm. Ngoy Caali. dinaa tàbbi ci askanu ngéwél. tàmbalee ko ci Mamadou Mansour. soo bëggee gis géwél demal ca moom. soo bëggee gis géwél man nga dem ci Abdoulaye mbay Peex. soo bëggee gis géwél. man nga dem ci El Hadj Lamine Thiam Dogo. et tant d'autres du dara lu dul daal am sa géer fu mu guddee nga guddee fa am sa géer lu mu nekk nga nekk ci ak moom am sa géer lu mu la jox ci loo xam ne lii kenn waru ko yëg ci àddina danga sooy dem da nga yóbbaale te doo xeeb mayam su guddee yaag moom su bëccëgee yaag moom mais nag da ngeen rek weccante nag ay xalaat soo ko gisee tam ci naka sunu noonu nga ne ko li jaaduwul doo ko topp rek ci lu mu bëgg ndax teraangaam déedéet loolu daal dëgg-dëgg mooy diggante géer ak ki nga xam ne kubarkàlla moom la ko yàlla boole muy géwélam te te aji maa ngi lay wax ne mm. mag ñi mosu ñoo nas dara ci réew mi mm. te géwél yi dugg déedéet musul xew soo demee ci ëtt yi nga xam ne nii mooy fi la kilifa diine yi nekk géwal yaa nga ca biir soo demee ci autorité yi géwal yaa nga ca biir soo demee ci askan wu mag yi tamit nga xam ne tubaarkàlla fii la ñu nekk ci Sénégal amul dara lu ñuy yëkkati te tubaarkàlla géwal du nekk ci biir déedéet yàllaa leen jox boobu cër moo daal cër suñu borom la la Mamadou Mansour daal ne géwal daal bu dee dox ndànk di wax lu baax du xeebu may buur la ba kere muy dee dëgg-dëgg loolu daal mooy géwél âge dëgg aji ngoy tubaarkàlla ni tax ñu laaj ko loolu nag dafa am fu ñu bëgg a jëm ak moom mm. El Hadj Amadou Mbaye Garmi dégg nañ ko rek gis nañ ko mm. waa Garmi fuy dëkkam fu mu juddoo fu mu yaroo mm. fu mu màgge koy way juram aji maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi juddoo ci dëkk bu ñu naan ñaari tali ndeysaan waaye maa ma nga maam nag ma nga cosaanoo ji ñaax ji ñaax péex ji ñaax nangoo naa ci sa bàjjen bi ñu la duppee ajatu ngoy mbuub mi nga xam ne moo seex sa bàyyi noo bokk ndey mu ne su nit masaan na juddee ci pays boobu ci jiñaax dañu lay yóbbu ca guy ga guy gi guy gu mag la sunu wisee li noo wis ñu gis lëm gi génn lëm nag dafa am dafa am ay nopp moo tax moo tax nga ami nopp ma ami nopp ah. kooku nag jiñaax jiñaax nag la xewee nag waaw guntuk pay googu nag waaw waaw waaw waaw moo suñu cosaan moo la war a tamit keroog bi la jaawale ci hôpital bi te sa bàyyi Seex Ture ñëw dañu kii du sama doom wan wan leen ma sama doom bi nga génnee mu ne waa bii laa jur waaye bee juruma ko waaw loolu loolu nag dëgg-dëgg nag mooy jiñaax pay <laughs> jigéen ju baax ju ñuy wax Aram Gueye yar la nu mu def ba nga màgg jël loolee doon communicateur traditionnel da nga tudd nag ku baax xam naa rek ma sargal nag Adja Ramatulaay Jaañ sama ndey ju baax Awa Diouf màngaan la ndeyam tudd faat sii sa ko mm. ab lébu soo ñëwee fii hmm. ci jas muy jigéen ji ci suñu ginnaaw mu nga àjjanay nelaw ci fi nga xam ne dëgg-dëgg ci tam gi ci jas ay maamam ñoo koy séddale koo koy Adja Ramatu koo Jaañ moom la ñu dénk nag Cheikh Touré Mbaye mu galema mbay jooju fëri ma ca ñaaxar mu am ci âge Amadou Mbaye Garmi la grand communicateur traditionnel aji maa ngi lay wax nag ni dëgg-dëgg dañoo jël góor gu baax gu ñaan Ablaye Mbaye ndongoo ko jur ndokku ma mbokku mamma ak atu penda ma ca ngoy ñooñu nag ñoo meññ gor su baax soo gis Cheikh bàyyam nag nekkoon trente ans ci Gossas aji aji ngay bay bu amoon maam ju amoon valeur ngaam am suñ ko masaan daan bayal mm. bajal gerte gi gerte gi mën na mën naa tiim ñetti étage ñu teg sa bàyyi ba ca kaw muy buur Cheikh Touré wallahi lazim wërsëg woo mu daan am ca loola xam nga nan la ko daan def aji mm. da daan tëggulu cin du du xam nu mu koy def mu jël alal ji di ko def ci cin di ko gas di suul ci askanu mag woowu nag nga xam ne dëgg-dëgg bi nu juddee la nu regg askanu mag woowu nag ci lu nu judd nag waaye jigéen ju baax jooju na nga xam ne mooy aram ndaw géey mbokku màgget géey ak alaaji mbay géey ak Mamadou géey mi ci mi ci njaareem ak Penda Gueye mi nga xam ne tubaarkàlla mooy caat juróomi maam yu baax yooyu le ñoo bokk ndey baay Ngoone Njaay Jóob la seen ndey tudd Ngoone Njaay jo Amar Jóob Amar Jóob ma jigéen Jóob Mbisaan Tam ma jigéen Jóob Lat jigéen Fay ma jigéen Jóob Njang Njaay ma jigéen Jóob maa mayin bugur ci askanu mag woowu nga xam ne nii kenn mësu leen yilif te bokk ci askanu ngéwal ci askon woowu daal dëgg-dëgg aji ngoy ci la Amadou Mbaye gan mi soqi waaye ki ma yar nag mooy ajutu ajutu aram géy ndaw mu baax mi nag kooku naal kooku daal moom laa tarbiyu mm-hmm. moom laa tarbiyu mm-hmm. sama ndey daal Amadou Mbaye gan mi mm-hmm. waxuma li ma lay liggéeyal waaye li nga liggéeyal sa maam rek tubarkalla doy na ci yow nga liggéeyal sa maam doy na ci yow moom la baay bu baax wax El Hadj Amadou Mbaye Garmi ngeen xam ni kon tur wuyu na borom yëfi gaar mi rek la fi def tubaarkàlla macha allah ñu ñëw nag ci ndey ju yàlla baaxal. àddina Sénégal dëkk bi fi mu toll dañoo soxla waxtaan yu mel nii soxla émission yu mel ni ëttu kër ndaanaan yi parce que bëri na xale yoo xam ne riir nañu xamuñu seen cosaan xamuñu seen histoire. moo tax tubaarikàlla macha allah bi ñu bi ñu jëlee émission bi tey invité El Hadj Amadou Mbaye Gaar mi ñu jël historienne bu mag bi def ko invité surprise am fas yéene dugg moom nag tubaarkàlla macha allah ci lan mooy géwél ci nan la géwél war a jàppale géeram géer nu mu war a téye géwélam ci ban circonstance la koy soxla tabaarkàlla Adja Ngoy dama kontaan ci laaj boobu nga ma laaj ndax géwél ak géer dañoo ànd démb tey soog a maam yi ba ñu àndee dañoo ànd ci ngor ànd nag ci dëggu ndax ngor balaa dëgër dëggu da ca ànd suñu maam yi dañoo àndoon démb di waxante lu baax te kenn di war sa moroom li war géwél ci biir digganteem ak géer foo fekkee lu bëgg a yàqu nga defar ko boo déggee lu ñaaw nëbb ko wax li rafet ba mu rafet ci wàllu géwél géer jàpp géwélam fonk ko yéene ko wóolu ko ba mën a wax moom lépp dina tax ànd ba neex waaye géwél daal mooy xam lépp mooy dugg fu bari moo mën a xëy jaxase ñëpp waaye moo mën a xëy wax lu baax ba ñëpp ànd ndax li ñu xam bari ndax fi ñu dugg bari na kon yàlla na nu yàlla may sutura ak noppi ak wax lu baax ndax bis bu ñu jógee pour wax lu ñaaw rek dina métti parce que xam nañ lu bari waaye lu rafet rek lañu lañu nugoo dañu dénk. tabaarikàlla sama borom kër bu baax ba taalamati ku la yàlla yàlla yokk leeram daana ma wax ne ma ñett yi day yàqalub géwél ma ne ko ñett yi mu doon mu ne ma xas géer ak nob géer nee na géer boo xasee ba nob jeexa dootu la may danaa danaa damaa nob ndax dootoo ko xas nee na boo xasee géer xasoo génn géer fukki géer nga xas te tabarikàlla macha allah historien gi ma doon ko nag ñaari yoon màcce kajoor màcce bawal ndax maa ko ma daane ba géwél làmbaay mooy sama maam moo jur jaara mbaay mu jur as seen sama ndey kajoor nag maa ngi dëkk kul xàndan dëkk bi dëggeen jóob foofa la sama baay sosoo abdu njàmbal sama baay njàmbal daawur njaay daawur njaay ma sàmba ndéngu waaye jaara sama maam it maaku mbaag yooyu fajur yooyu sama moomoon xaleel maaku mbaku jagaat coro kodd ndaag bu nu jigéen jërë mu jërë mbay ala yaasin maar seen yaasin maar moodu yaasin maaku ma daane ba géwél làmbaay sama maam tabaarikàlla macha allah géwél bu mu mas a dajal xam nga mooy kan ci diggante ngas ak làmbaay waaye ndongo jëlaan sama maam nag moo doon def bu nawet ñëwee la mag ñu baax ñi daan def yilifoon nañ ñëpp li may faral di wax ne bu ne nikki ki dinaa ko yilif yat laay jël dama koy wax lu ñaaw dama koy def ndax ma yilif ko déedéet da def lu baax di ko wax da ngay tey ko di ko dimbali ëppale ko wërsëg di ko may ba loo ko def loo mu def ko sama maam dongo loolu la doon def ba sët yi ko gisul sax bu ñaan damay roy sama jikkoy maam dongo dafa boole woon ñëpp yilif leen ba kenn ku mu ne awal fii doo ko paase su nawet masaan na ñëw danaan ñëpp tëj leen seen i kër jarbaat yeeg doom yeeg sët na ñëpp ñëw di lekk sama kër ba bi jeex saxam doon woon jeex ci la ñu doon lekk ba nawet ba jeex tabaarikàlla loolu démb la waaye kenn fàttewu ko may delluwaat nag aj ngoy ah di ñaan ci yàlla sama kilifa gi yàlla jël bu yàggul muy Mabdou Niang nekkoon lar wurus ñëpp xam ko muy sunu kilifa yàgg nañoo ñàkk ay baay waaye ba ñàkkagul baay mooy suñu baay ma di ko ñaanal yàlla yàlla yokk leeram mënuñoo toog fenn ba jokk te duñu ko moom lañu ñu miin moom lañu ñu xam muy sunu kilifa ñëpp te matoon na kilifa. kon nag ajango yi man boo ma wooyee ci géwél dama ciy sawar ndax géwél gi rek la tiitaroo waaye tabaarikàlla macha allah am na ñu ñu ma ñoo xam ne du ñu def daal lu ñu boolewul ndax ku mel ne ajaratu maamante lay sëñ Mor Kumba Kan jur bu sakan yaayam du def lu mu newul fàññankaay te it tabaarikàlla macha allah ñu ko bokk bari na nit ku baax la ñëpp la jox cër waaye dama fàttewul benn yoon duma ko fàtte dama fàtte askanu kër maam gépp nag ndax seen askana toll noonu. waaw. penc moo xam ne ay géwel dañ faa toog. Mhm. war a waxtaanee. penc mu ay géwél toog war a waxtaan ak géer ñi te jaxas jaxas am fu war a jaar ak lan moo indi historien tubaarkàlla Adja Ngoye doomi géwél yi bu ñu daj bu dajee ba war a waxtaan a géer ñi li ma la wax léegi ci laay delluwaat nañuy wax dëgg ba bu ñu waxee bu ñu gestee duñ ne ma waxoon nangam boo waxee dëgg kenn ku nekk mën ngaa wax ak moom te kenn du mer te it doomu géwél kat day ñeme dëgg balaa nga bala ngaa mën a wax dëgg na da ngaa maandu ndax bu dee lu la nit wax nga denc ko ñi daje ñëpp bokk nga xam seen soxla. waaye kenn ci mënta li sa morom li nga li nga xamoon ca loolu mooy doomu géwél doomu géwél mu seel dem bàyyi ko mu sul wax bàyyi ko mënees def bàyyi ko ndax nag loolu yàlla bala ngaa wax di nga ne géwél nu may waxe mbaa nu may defee loolu ku ñu koy wax dangaa ngaa war am xel mu rafet di wax lu ñu mën a dégg di wax loo xam ne bu nettali ba dikkee doorus kon mën nañuy wax ak buur yi mën nañuy wax ak ñépp nag. ndax wax dëgg ak wax lu baax te kuy wax lu baax doo juum te barikàlla macha allah nungoo dégg-dëgg buñ la waxee dëgg ci dëgg rek ngay ànd kon te barikàlla macha allah yàlla na yàlla jàppale. géwél buñ ko dee déglu gé dëgg la war a wax ndax ku ñuy déglu da ngaa war a defar waroo yàq papa tubaarikàlla macha allah Sénégal am na ñoo xam ne sax dañ naan Mansour Mbaye la jur man nit mës na ko werante ba ma wola di la ko laaj ma ni leen maa moom a bokkub ndey ak baay waaye nag Mansour mën naa am doomi baatinam am doom joo xam ne moo ko jural boppam ndax ñëpp ko am moom moo def boppam ne âge Mansour moo tax doomu aadama yi gis âge Mansour ci moom papa luy communicateur traditionnel ak lan mooy rolam waaw euh, aji ngoy xanaa ma ndokkee laat bu baax Mamadou Mansour mu ngoone taal ñang mu Amadou Mbay Maodo day bay bu yàlla baaxal bëgg boo gis yéeg daf ca am solo ko bëgg te yëgoo ko bu yàggee mu wàcc la mm. alaaji Bassirou Diagne grand sëriñ de Dakar bu Marème Diop Maxtaar moo ne ma Amadou Mbay Garmi góor daal bu la xoolee ba bëgg la da ngay fexe ba yëg ko mm. Hadj moomu nag nga wax léegi mm-hmm. mooy président de tous les communicateurs traditionnels mm-hmm. feggoo nag ak rakam ja Abdou Aziz Mbaye mi mm. yor secrétaire général bi di Aziz Mam Fama mm. mu jiite noonu ci jiite bu jekk ndax nit ñi boo leen mënee jur te ànd ak ñoom te jiitu leen da leen di nekk Mamadou Mansour nag def noo nekk fexe tamit ba am ay qualité yoo xam ni ci qualité yooyu ñun ci la ñuy dox mën na noo bañ a ànd saa su ne waaye saa yu nu gestoo dañu yaakaar mi ngi sunu wet ba ñuy doxe doxinam di waxe waxinam di jëfe-jëfinam communicateur traditionnel nag aji ngoy li ko indi mm. géwél yi dañ daan wër rek macha allah tubaarkàlla bu seen géer xewlee nu dem am aminta mbeng xaali su lay ak sargaañ tafaski faa muñ ma ca dagana xaali faa muñ ma ca Louga daal di dem ci président Abdou Diouf ñoom ñaar ñu jàkkaarloo mu ne ko daal am na léeg-léeg loo xam ne dañ koy doxal ci réew mi te buñ ko tegee ci loxo géwél yi mën na jàll mu daal di ñuy dajale ca sali fala la ñu nase communicateur traditionnel Abdou Diouf nag kenn du moom ca yarga ca teggin ga mm. ca ngor ga ca baax ga ca yiw ga yëf yi saf ko lool mu jàppale nañ ca loolu ànd ceeg Aminata Mbengue mm. fekk naa ko francophonie mm. ak sama géer gu baax ga nag Ousmane Pay Pay Pay njéeme yaay sooy jaraaf keroog bi ma tabbi ci biroom aj ngoy ci laa amatul benn complexe chef d'état waaw ma waaw loolu am de te bu la di recevoir ci buntu bi la lay xaar nga ñëw mu tàllal la loxo ànd ak yow ba ci dëgg-dëgg ba ci biiroom mu tàllal la sees bi nga toog ma ne waaye xoolal xoolal nga xoolal bii grandeur. dëgg la loolu dootul xew. wallaay mbay foofu nag dëgg-dëgg ñoom ñooy ñooy am détail. foofu ci la communicateur traditionnel jóge mhm. ba pare nag mu ñu teg ko ci loxo Mamadou Mansour. Mhm. mu yor ko yor bu jekk. Mhm. yor ko yor bu rafet. ba ku ci gis ci sa bopp. loolu mooy won ne daal dëgg dëgg kuy dox war nga dox doxinam mhm. kuy wax wax nga wax waxinam mhm. kuy jëf war nga jëf jëfinam mhm. waaw bu looloo tax dëgg dëgg maa ngi dégg rek Abdoulaye Mbaye Pekh naan ñu war a régler la waaw dañ ciy dox nag dañ ciy dox waaw papa taxawal foofu <laughs> ndax tubaarkàlla dañoo dem buy ji peex Pekh ni communicateur traditionnel duy caaxaan te am na ay naawtal yu naaw dugg ci dina seeti ku mel ne Mansour muy seen kilifa seeti Abdoul Aziz ñëw ci garmi dem ci Lamine Thiam dogoog ñoom saala biig ga xale yi Abdou Aziz Maam Faama ngeen toog waxtaane càmbaraat ko seggaat ko papa loolu peex wax di sa frère di sa lépp loo ci dolli ci émission bi waaw xam nga ngoy caali hmm. géwël dafa yaa dënn géwël dafa tabe géwël dafa gore léeg-léeg nu tàbbi ci benn mbooloo moo xam ne mile yàlla daf ñu fi jox wërsëg bari waaye ñu xool koo xam ne kile côtoyé nañu te bëgg li ñuy def ñu jël sunu wërsëg tere la ko ca loola te aji ñun boo nu xoolee tubarkàlla ak ni nu mel da ngay da bëgg mel ni nun looloo tax mu bari ñu am ñu déplacé ñu bari ñoo xam ne tàbbi nañu ci biir yi ci biir mbir mi waaye rafetal gi rek lañu leen di ñaan ndax géwal siisul hmm. géwal bonul géwal tubaarkàlla day partagé lu raam nag ba tàbbi ci dafa am rek noo koy noo koy doxalee parce que bu nit ñi dee lim duñu segg duñu ne diwa def dañ naan géwal ya la ñu def waaw boobu de naqari nañu lool mbay boobu moom neexul moom waaw bu nu sañoon daal hmm. ñun li nu doon te xam ko te ne ci hmm. te ànd ak géer gi géer gu jox nu cër ndax dañ koo jox cër mu delloo nu ko dëgg-dëgg bu nu tënkoo ci loolu rek dara du xew. am na communicateur traditionnel yoo xamante ni tey bu ñu nee cëpp ci sa géew yow mi ñu wuy si yaa naan bëri dem fekk leen ci seen oto sargale leen fa tatagale leen fa li nga wax léegi jël leen indi leen mais am na ci ñoo xam ne dañ lay seen nga ñëw au contraire géwél danaan wax lu baax géeram mais léegi dañ lay seen rek daal ne laa ilaha illallah faf di la catu diwa ngoog daal di lim li ña ci yow yëpp su ko defee da ngay daal di bëgg a daw dugg ci oto ba ñoom ñu di la xëccu nga yéegal say verre ba tasaale seen loxo ne la xalaas ñu koy nuyu bu baax de passage papa loolu loolu loo ciy dolli. waaw ñooñu aji. soo leen ragaloon wàññi leen boo leen wàññi leen boo seppee géwél ñaar lañuy doon ca biir ku bokk ci askanu géwél du mel noonu dama ne géwél dëgg dama ne foo gis ñu séen ko fa daa fekk nu woo ko fa loolu la war a mel de nun saan maam sunu maam daan war fas ñëw bu ci buntu pey su taxawee di wax li muy wax di wax li muy wax tubaarkàlla bi bu su ko géer ñi déggee ku ci nekk da ngay génne li nga am tubaarkàlla yëkkantee dal ci moom pour teral ko kooku daal kenn du ko gis ci recette yi dama daal géwal piir dama ne géer du ko gis fi tam di dem koo xam ne kii lu mu am yéen mën na koo bokk ak yow kooku daal dëgg-dëgg am na benn melokaan boo xam ne bii soo ni melee dafay nekk lu am solo te nun li nu doon leneen lu nu doon lu loolu rek bokk ci yàlla dogal lii dañ koo doon leneen lu dul lii bokkuñu ci. Mm. sa diggante. bu ma duggee Mbambilor rek. Mm. doy na waxtaan. Mm. ndax tubaarikàlla macha allah am na koo xam ne sa nit la woon sa géer la ba tey sa nit la te dugg na ci dara di ko wut ñuy ay géwéli laal yokk laal palu. mën nga ñu cee demala. waaw xam nga aji. Ah. moo tax géwél day xam boppam. jërëjëf Mbaye. am na ñoo xam ne dañoo war dañ laa war fay pour nga ànd ak ñoom. barka yonent rek sa doom Maodo Garmi. dafa ne dafa ne papa man da TFM dañ maa woo waaye ma ne ko rëg-rëg am na sens de. waaw waaw rëg-rëg ngay am na sens. waaw dañ koy yokk mbay. dama ne ñun li ñu doon. Mm. tubaarkalla laaw la cat. Mm. jarul sax ñu ciy tàbbi. dëgg waaye am na ñoo xam dañ laa war a fay. pour nga ànd ak ñoom. dama ne nit koy àndal te xamul yaay kan teg ko fa. aji dama ànd ak ku baax ku ñaan président Youssou Ndour mari seen maawo di maamam nday soxna di ndeyam booba kër penda yéri jur ko ndax bëri lépp maamam dañ ko jox biram siga seen mu am ca maawo maawo lañ jox soxna Gueye mu am ca amadou seen maawo amadou seen maawo moom la jox góor jigéen ju baax juñ naan juñu naan juñu naan juñu naan soxna Gueye mu am ca mu am ca Marisène Marisène lañ jox Boubacar Ndour mu am ca jigéen ju baax juñ naan nday soxna mbokkum ndeyum faat kodde ñu jox ko Iliman Ndour mu am ca Zeynabu mi nga xam ne nii war na ma rasulullaay damaa ànd ak président Youssou Ndour léegi mu mat vingt ans ay aji eh, maa ngi lay xamal ne daal géer daal soo lëkkalikoo ak moom nga dar ko te amoo ca benn yokku-yokku teg ko géwal boo ànd ak moom te amoo ci benn yokk yokk teg ko géwal da lay jik ni la giir di jige waaye daal dëgg dëgg daal tubaarkàlla am na yoo xam ne yëpp kenn mënu cee tabbi ndax day nuru day nuru wannu te nun te nun duñu wannu duñu wannu duñu wanewu waaw cër bi yàlla nu ko defal dañu koy sant yàlla na gërëme ko nag bu baax a baax waaye parce que am na foo xam ne fi da ngay laal yokk am na foo xam ne boo laale doo yokk yàlla koy dogal bu la yàlla boolee nag ci ñi ci ñuy sant yàlla da koy gërëm te sant ko bu baax a baax te te wax te gërëm ko waaw kooku nag dama ciy tàmbalee ci ku baax ku ñu naan Pape Babacar Mbaye bi ma gimmee ànd ak jeunesse socialiste su Abdou Diouf masaanu dugg ci saal bi ñu nekk fukki présidente ak benn wala nag fukki président ak benn dañ naan suñu géwél bi di dugg Amadou Mbaye Garmi bi ma xamee Mansour mbay te dugg ci communicateur traditionnel moo bindi kayit moom Pape Babacar doomu Léopold bi mi nu dénk ajutu Ndey Diouf teg ko ci loxo ko ñu naan Terra Sarr mu ne ko teg ko ci loxo Mamadou Mansour mu te ko ci loxo Abdoul Aziz mu ne ko nañ ko bool ci communicateur traditionnel yi te di ko sédd ci la mu Mansour Mbaye nag dox cër boo xam ne bile cër la boo xam ne bi dama ko jëlee ci communicateur yi muy tàbb ci dëgg-dëgg ci dëgg ci Amadou Mbaye gar ñu jóge ci loolu maître Abdoulaye Wade nekk fi mm. te man te man te man aji fu ma xësa a téye xooluma leneen waaye daal ràññee déglu naa dégg naa ci sa baay naan mm. su ma saan jóge dugg ñaari tali mm-hmm. jëm kër muur toola wadd mm-hmm. mu may saak ndikku su akkee ba ci bunt bi boobu sa boobu sa baay mi ngi ñëwee ci ci kër ajatu nday tandu ñang idée la yor mm. Karim day nekk ci biir siñili siñili nekk ci biir mm. mbedd mi bari suuf su paanee day wàcc ne eh, sama jaam bi ñëwul puus ma ndax diggante wadd ak Mbaye loolu ràññee naa ko dëgg-dëgg ci maître Abdoulaye Wade mu baax bi mm. waaye nag président Macky Sall bi mu agsee mm. daf noo jox cër nag xam ñooy ñan bi mu ko doonagul sax daf noo jox cër am na bës ñu ànd ak géwël yi maa ngi ànd ak HBK maa nga ànd ak Lamine Thiam Dogo nu fekk ko boobu mi ngi nekk président en l'Assemblée nationale keroog ba ñu demee dañoo yéex ak si benn billet màkk la ñu fa fekk mm. ak téeméeri junni mu ne mu ne yi waay yéen de sama gars yi da ngeen yéex a ñëw xanaa ngeen jël lii nu ñaanal ko yàlla ba yàlla nag teg ko nag tëggu tubarkal ci bopp chef d'état bi waaye lu mu def boole nañu ci mm-hmm. ànd ci ak Farba Ngom mu baax mi te ku ci loxo Mamadou Mansour ak Cheikh Mbaye Mansour lépp loo xam ne lii war na ko ci nun billet màkk yi aji mm. ak yu baax yeeg yu baax yoo xam ne yu ko ko lim mooy kenn ko fee mm. yu ci nekk dootu war kon dañ ko ñaan demem gi de wax dëgg yàlla ah dëgg dëgg xanaa waaye bàyyi na na ku baax yàlla na ko yàlla yàlla yàlla na yàlla def jam aji. sa day nit ku baax keroog ba sa ndey ajar génne àddina dama woo Ousmane Sarak nu dëgmal jëm ci banque bi ma ne ko naa dem am lu ma retiré pour nu mën a tàmbali. yónnee nag ndax nag yu ñuy jëkkëre ci ci ci ci bésu ramatulaay bi sama sama wërsëg la war a nekk maa moom nu tàbbi ci rang bi ma ma balee sama portable ndeke ñaari fan ci ginnaaw yónnee na ma lu bëree bari te wallahi lazim gisuma ko te yooyu geste mm. bari na ci moom sama diggante ak moom mu koy def te daf may fekk ci ci diggante rek boo xam ne bii damay koy xool rek ndax ñoom buñ la ko buñ la ko yabalee tam duñ la duñ la tàggu damay xool gis gis teranga bi tubaarkàlla madame Mbengue nga wàcce ko mu nekk nag koo xam ne clé bi mu toogagul boobu toogagul de lii li aji mi ngi nekk mi ngi nekk mille 2011 ñu tàbbi ca ndar Mansour Faye wala édikaay moom fekk ma toog mu ne Amadou Mbaye Garmi am micro bi yow yaa noo présenté boobu faloogul de wallahi lazim falawagul mm. ma yor micro rek naan premier dame. première dame première dame Macky Sall président de la république du Sénégal Marème Faye daf mu jóonee ci man ne waay waay waay neel gar mi ne ko doy na nag boobu woteegunu ba xam dina fal wala du fal barka yonent bi ba yàlla dogal ba yàlla dogal li mu dogal barke Demba Ndiaye tam bi Mamadou Mansour di dem hmm. ca palais ba Amadou Mbaye Garmi mii hmm. dëgg-dëgg man dëgg daf ma yóbbaal ci juróom-ñaar ñi nga xam ne nii ñoo jàkkaarloo ak président Macky Sall te ñu jëkk a jël kaddu dem Amadou Mbaye Garmi loo wax loo wax président ma wax ko ma faram-fàcce samay kaddu mu jëm ci moom loolu daal dëgg-dëgg hmm. aji daal Euh, reeru daaw yi daal bu dee doy kon ma xam ne doy na. wallaay Pape waaw loolu. allah nii rek la concept bi di demee ëttu koy ndaanaan yi macha ci télévision bu mag bi la 7TV la télé qui nous ressemble et mm. ñu dem ci El Hadj Pape tubaarkàlla macha allah. muhiddi ji ma ñettal leen Abdul Aziz Abdul Ahad Abdul waaw waaw muslim yi man noosa kenn dootu cheikh bi gar mi ñëwee woon na kenn jooyatul baayam waaw waaw li nga wax yàlla la ko tax wax Birama mooy sa yaay ci seeri ime googo góoru ngoy caale baayo ngoy caal waaw waaw gar mi ngay moom waaye jëf yi gar mi ngay dunde góoru caale gosa waaw waaw. ilimaani ilimaan ye te moom nga doy loo. bayu bas baax na yéen a bokk baay. waaw mu desoon màgg war na képp kuy naar ba boo weddee li may bëgg a wax laaj ko Cheikh Mbacke yaar waaw waaw baax na tubaarkàlla macha allah nii rek lay demee ci ëttu ndaa ndaanaan yi tubaarkàlla macha allah xam naa ne nag li des ci heure yi du bari ndax macha allah émission bi toujours noonu lay demee ñu ñëwaat ak suñu yaay ju baax ji historienne bu mag bi macha allah mu présenté leen boppam wax leen moom mooy kan dugg tuuti rek ci tëjal ñu rek yeddaat dolli géwéli defaraat seen toogaay. waaye giir ñi delloo leen cër. waaw ah, tubarkàlla Adja Ngoy kontaan naa lool ni ko gar mi waxee dëgg la ñun nanuy seet fañ ñu nammee ñu di fa dem ndax nag dug bari la de waaye am ngor la ndax lu mu mënti demee rek demal fañu la soxlaa tubarkàlla macha allah léeg-léeg ñu woo la ba ñu lay woo ñëpp mënoo leen a bokk wuyu. kon li mu ne nag wax dëgg yàlla ah man de damay jéggulu ñi koy def waaye taxawaalu bi mën naa ñàkk ndax lu tax nga am la gën boo tàmmee li nga doon ñu teg ko ci sa loxo doo tàmm taxawaalu te it tabaarikaal léeg-léeg may leen géer ñi suñuy nawle lañu te bu ñu nangu géer ñi gën ñu ndax ñoo ñuy teral ñoo jox seen alal kon bu ñu nangu ñu gën ñu kon tabaarikaal la macha allah dañuy yeddaat suñu bopp bu baax ci géer ñi yàlla booleel. waaye géen ñi xam ñooy kan xam li ñuy dox ci seen biir xam li ñuy dugal ci ñoom ak li ñu boole li nga wax léegi dama cee d'accord tabaarikàlla bari na tey nit ñu baax ñoo xam ne ñun suñu ween yi lañ leen di nàmpale loolu am na lu tax te tabaarikàlla macha allah te it bu njëkk bu ñu daan balaa ñu woon na jox nit nee ko del nàmpal saltige lay tànn ba xam loo doon ak loo nàmp ci sa ween ak lu sa ween ndey lu mu doon nga sa ko nàmpal géer ndax doo tëb rek ginnaaw par géej te xamuñu loo doon de ak foo bokk. saltige lay tànn ndax man maa ñun suñu maam maa kumba daane ba géwél làmbaay ñu fi bàyyi woon ñu ngi nàmpal waaye nag ngoy albisi léegi nga xam ne fa suñu biram pa paata jabaay suñu maam dëkk biram paata jabaay saltige la woon. fi ñu bokk dañuy nàmpal waaye géwél bu setul doo nàmpal de tabaarikàlla macha allah du ñëppay nàmpal du ñëppay am géer ju nag. du ñëppay amit géwélu juddu. lu ko waa cër la nag cër boo xam ne démb la woon la ñu booleeg tubaarikàlla waa Kul Diop bala joo dajeeg maa joo dégg ko ca ngol-ngol kër waa kër Paate Fere Ndias jeex kër waa kër Ndéng Fatou Mbaye sunu kër maam jeex nogoy Diop Sambay bëgg bokk boppam lool tubaari tubaarikàlla ak Soda Mbaye rakkam ak njabootam ma di ko ñaal yàlla mu wér ma ngoy ak ma dem ba ngoy bëgg géwélam lool. tabaarikàlla macha allah Fatou Diop bi solol lii asam maram penda ma ca cel ma xaay maamam ak soxna Roqay Diouf mu baax mi ñu dénkoon sëñ sëñ Malick Fall naqar dong la fi bay yàlla yàlla yokk leeram tabaarikàlla Adja Ngoy macha allah émission bi li ñuy wax xaju ci waaw tabaarikàlla macha allah dañuy wax lu baax baax te kuñ ci ku ci ku nga xam ni rek déggu sa tur na nga na nu jéggal te xam ne lanu bëgg mënuñu ko am. ndax buñ ci woon yenn du ci fanaan du jeex la sama sama sama borom kër doon wax ne bu doon jeex ba tey dañuy fekk mu jeex bu yàgg kon ñoom maam jeexaloon nañ ko dañ ciy tëddee du ci dund ba génn fi suñu suñu njaboot ñëw. may nuyu nag soxna maam Boussa Kane mi ngi dénkoon sëriñ Talla Kane yaay sëriñ Modou Kane ma fàttewul tabaski ak korite ak soxna Fane Mbacke jaxate tabaarikàlla nit su fekkee du la fàtte doo ko fatte di nuyu ajatu Ndeye Amy Diop ak ajatu Ndeye Mané Diop docteur Ndeye Mané madame Dieng bëgg mbokkam ajatu Ndeye Ma Ndeye Mante Diop mu ñu dénk mur Diop fàttewul géwélam benn yoon te ku sagal ku ne danga koy sagal ñi ma sagal ñëpp sa mënu ma leen tudd de waaye dama ciy wax tuuti rek ajatu Fama Ja moom nga xam njàmm xarjata ja rek kay maamam. waaye soxna ummi kan yaayam wàlliyu wa moor kan ay baayam mbokk ndeyam sëriñ moor kumba kan mi doon tudd léegi maymuna kan moo jur faama saar faama saar lañ dénkoon sëriñ ngom tubaarikàlla macha allah ñu ñaan ci yàlla yal na yàlla yokk reeram di waan Fatim Paate kooku moom a saxal Ndakaaru di nuyu Njóoba Ngom dinaa dem ci Maymuna sama taaw boobu bëgg yaayam tabaarikàlla macha allah ajaratu aram Gueye maa ngi koy ñaanal ak maa fonk ak njabootam di siyaare soxna fi Mbàkke di ko siyaar bu weer ak sëriñ Dan di siyaar waa kër Fatou Thiam Dogoñ di siyaare nag Njóoba ak ay rakkam di siyaare moom i ñoom ñëpp maa ngi leen di siyaare ndax kenn ku ci nekk am nga loo siq ak man te tabaarikàlla macha allah seen bàyyi ñi buur rek àjjana ñu bàyyi ma fi tabaarikàlla macha allah dama aji ngoy li ma wax rek ñiy defal lu baax mënuñu la lim de waaye dañu ci wax tuuti ndax nag fi ñu toogoon ko yóbbee ndax ajoot awa caw mais ma dëkkal ñu bokk bokk pencum gàdda ngay ma mu téye ma jàpp ma ak njabootam dama ko ñaal mu yàgg fi te bari tabaarikàlla macha allah ak isa ibam ma bokk ñëpp nag dëkk ak ñoom ñu dëkk ba rafet lool li nga wax léegi du ñu taxawaal waaye lu ñu soxla dañuy waxtaan ak ñun laaj ñu suñu xalaat kon loolu sant yàlla la. tubaarikàlla macha allah. waaw may mu leen dul fay su ma ñëwee ci moom damay sawar sama taaw boobu nga xam ne bariwul yàlla na sekki moom tubaarikàlla jugu saar yaayam ku mu jàpp du la bàyyi lu mu jàpp du ko bàyyi. kon may mu na ku ko lebal kër mu fay la guddi. ajaangooy dama laa gën a sopp ndax may mu na ndax may mu day sama doom ma jur ko yaayam di nit ku baax ku ma bëgg ku ma sopp ñun bay soog a ñëw Grand Yoff ànd ak ndey jaara sama mag yàlla yokk ndax moo nu fi indi lu nu am moom la bi nu ñëwee nekk moom kër baam bañ saar la nu njëkk a dëkk di maam may ma dul fay jur jur yaayam bu ñu masoon a ñëw këram ci biir këram la nu luyee ba noppi te bu ñëwee day ñëw dina jox dépense day ñëw bu ñëwee ñu ñu ñu naajee taal bu ne waa sama doom yéen lu tax duggeegu leen taal añ ñu ne ko ah ñun kat bàyyi mbay ñëw suñu borom kër yi neen dañuy woyaan ba noppi soog a mën a togg mun a woyaan soog togg laay laa waaye géwél la géwél la moo ñàkk a ragal yàlla yéen bala ngeen a togg da ngeen a mu ne ko ah, ñu de bu nu waayaan duñ toog mu ne ah xam naa mu làmb poosam yëkkati xaalis bari jox ma may mu ne liggéey day dëgg de waaye kër maam milaas mam fa bàyyi jeexul ba fii mu toog sama doom gi taxu koo ñàkk yar taxu koo yab ndayam taxu koo yab kenn ko bokk ci ndeyam te place am bi fa nag ku mu xeetool yaa fa mu gi nag ajango dañ ko def dañ ko def nag woy ndax xam nga moom tàmm lu koy suñ ko séenee muy ñëw day daw na nëbb suñu fourne bu fekkee ñuy taal daal di wut luñ ca dëpp ndax booba gaz bariwul bu nee tel agsi rek daal di ne waa sama doom yi yéen a ngi toogati da ngeen toggul ñu ne ko ñu ne bàyyi ma danoo woyaanul moo tax mu ne man de seen jëkkër yi jàpp doomi jàmbur takk ko teg ko ci béréb naa ko daal lambaat poos ba bàyyeetuñu ko nag rek doom gi sax bu ko njëkkee seen daan daw leen paa baa ngi ñëw loo loo jëf day passé waaye nettal du wees dañ koy wax ba fi ñu toog tabaarikàlla ajaa ngoy di siyaar sama njaboot nag sama doom yi di sant di sant nag deela sama rakk sama rakk ji ma jox cër fonk ma yéene ma lépp xëccewul ak man dara lu ma jur maa ko yilif maa yilif moom lu ma bëgg la bëgg lu ma bañ la bëgg bañ sama doom yi jigéen it ma di leen ziare ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla ak seen i borom kër yàlla yokku leen ak sama rakk yi ñoom ñëpp bàyyi ma kenn mu njabootu ndey jaara di muy ñi mu yore woon ñëpp bàyyi ma ku ma fàtte rek juum naa sama doom yëpp maa ngi leen di ziare waaye maa ngi seen ni ñu baax ñi ma yàlla booleel ñëpp ñi ma yàlla booleel ñëpp ñu di ma teral ku ma ne aji gay sama taaw bii di taaw faama ja faama ja mi nga xam mooy soxna ummey maamam tabaarikàlla macha allah wallaay damay ñëwaat ndax tabaarikàlla li ma bëgg wax lépp xaju fii waaw moo si raget ba bokk ma mu ci Dakar naar moo rek ba baba ak balaago ba fu ma tàyyee bàyyi baba diggan jóob ma ca sàmmaako mba yaasin demba ko mbaan ma tabara yéri geewul njàng taaw faat masaar ma gaynde taaw penda ba jaan yëri njimi jàngaan bi dee sàmm diwaan fatim paate naqa def bàyyi waaye bàyyi fi gàcc waaye alaaji moo ras borom gaali géej yu na naqa def bay waaye bàyyi fi gàcc ulay ngoma ngi may solal aram gay li ma sumi léegi ma ma ko solal damay ñëwaat nu doy incha allah <laughs> xam nga macha allah lii la ñuy wax ne géwél boo xasee ba tàngal aw yaramam fa suñu yaram di tànge fekk na ñu nekk ci njeexital li ndax émission bi macha allah guddul papa macha allah sànq dafa am fu ma doon bëgg a ñëw faaf nga am loo fa boros ndax kenn ku nekk ak fi mu toll ci yow sa diggante ak Youssou Ndour tuuti ak sa diggante ak Mamadou Niang Paril hmm. sa waa ji. mais sa gay maram Thiam faa may naata Yacine Gueye Mbagnick. Hmm. Adul Gueye Seck la maam hmm. moom la guddi ko yóbbu jéem. ndeysaan. kooku bi may tabb ci biir arène bi di làmb ji. daf maa wóolu ma dëju mu ne hmm. du mbay garmi hmm. dama lay ñaan rek nga def benn góor rek naw la muy Mamadou Mansour ndeysaan bu samedi jotee mu hmm. jox ma ñetti morceau yoo xam ne yi du laal ndox loolu def na ko tubaarkàll lu mu lu mu gàtt gàtt def na ko juróomi at dëgg mbay ba su ma damay defar un grand griot la mm. te kaw lay toog teg la samay tànk. ndeysaan wala sama marakis bu bees. ndeysaan kookoy kookoy Mamadou Niang pare góor Fatou bi. ndeysaan. waaye sama yaay ji léegi dafa wax léegi. Mm. tudd Aline Soro Bourou Ngoy. Mm. te ngeen daje ci. Masamba Ngoy samaam. ci benn takkusaan lañ ko boole jaawle ko Aline Aline Soro Bourou Ngoy. fital ko mu daanu ndax ni mu ni ni buuru ngoy daan sañse noonu lay sañse laay laay hmm. lay may sa ñooñu dëgg-dëgg soo dajee ñoom boo dee tàlle soo loxo lu ñu fi teg ñiilu waaye ngoy tudd nga léegi tamit hmm. Ndiagne Diop le député maire de Bambilor wallaay may ma teral la hmm. ba pare jox ma sax lu may terle waaw waaw loo be borom darnde ak njàmbaas Samba bi tamam seen jom mi yéen doon daw ras ñoo jom yéen doon daw Matar Diaw bir ma yéen fa yéen naa bàyyi sa ko bi Samba ak Fatma ak Joor juróomi li ngeen doon saax soxna mi di seen bay tudd ndeysaan saaxee li ngeen ndeysaan dox na ma may terle mm. teral na ma dox ma lu may waaye Matar Diaw nag mm. macha allah mm. kenn ci man mm-hmm. latti jaw ma ma jow xool ma jow xool yaasin paati ndeysaan jongo may xujo booy bu mel ne jaw lay fanaan waaw waaw mbay ndeysaan kooku daf may jox oto oto zéro kilomètre. Hmm. te su ma koy jox. aji ngoy waaw. assurance bi day mat un an. ndeysaan. da koy def plein. Hmm. ba pare jël enveloppe bi teg ci taw tableau de bi na ma yóbbaaleel. ndeysaan. jëfum du manqué. moo tax ma am ci yëg-yëg. barki Dembo Ndiaye. <laughs> bi doom ji ñaani ñaani jabar. Hmm. teraanga yi ma ko yóbbu. ndeysaan. maa moom tam nuy waaj war a dem Niger. Mhm. pour defe pour pour defe suñu ceetu doom jooju. wallaay ndeysaan. kooku mooy Makhtar Diaw. macha allah Adja Binta Sarr doomu ndar bi sëtu Ndiaye Sarr boobu borom kade bi ci ndar ndar ndar. ndeysaan. dama ne géer. Mm. soo andi géwélam. Mm. jarul mu ñi ñëw leen na ko defar rek. wallaay mbay. soo ko defee rek ku gis rek defe ne dëgg-dëgg war naa jege. tubaarkàlla <laughs> papa macha <laughs> allah jeex na presque tàkk. papa lii ma téye. Maimouna Ndour fay la Adja Naati Guèye mu baax mi doon décorer demb ci place de souvenir. mu yónni ma man géwélam bi man animatrice am bi macha allah nekk ca télévision bu mag bi. ni ma naa ko dem jëli ñëw indil ko ko moo tax ma honoré waat la ci may gisagu ko. ma indi ko ci émission bi wan la ko nga ñaanal ko ñu ñaanal ko ndax li nga wax léegi ñun lu laal a gën lu nu te bëgg naa ñu yokk ko tarafa yi bari. tubaarkàlla macha allah. waaw may mun a man ko ndokkeel bu baax mhm. may sa maamam mhm. dafa yàgg siin ak saaru mhm. yàgg fa lool ñoo ñu ne ko moo may sa suñu ko laajee ñu ne daal dëgg-dëgg ana may sa ñu ne waaw ma nga ma nga fa ne jonn rek moo waral may sa waali jonn ndeysaan buur mbegaan maamam moo nekk fukkeelu buur ak benn ci diggante Siin ak Saalum. Hmm. benn buur mosu ko wàññi mosu ko delloo ginnaaw. Hmm. mu bokk nag ci jigéenu jàmbaar yi. Hmm. trophée yi dana bari aji. wallaay Guèye euh, Mbaye. teraanga yi dana bari ci moom. wallaay Mbaye. mbaax gi tamit dana bari ci moom. xam nga koy waral la. aji dafa danga nga ci seen biir tama xam la. dëgg la. man suma ma amoon société di man Amadou Mbaye Kane dama lay jël nga toog ca biir maa ngi yow nuy yàkkaar. ndeysaan lu tax papa ndeysaan. loolu la yàlla dogal. jërëjëf wallaay mbay waxuma ne li nu bokk taxul. wallaay mbay. dama def dafa am ñoo xam ne ñi ci askan. dama ne tubaarkalla nga yeewu di leen xool ñu lay xool rek doy na. wallaay mbay. loo bëgg yàlla defal leen. wallaay mbay. te yow maam yi nga doon. Mm. tab bi ma ci digganteem ak maam Cheikh Ibrahima Fall. maam yi nga mm. doon. Mm. waxuma seen digganteeg Cheikh Aliou Touré. ma soxna Ndiaye Pate Yacine Kombay. wërëgën gét muuruma jigéen fu mu fàggee Ali Samba. maam yi nga doon. waxuma sa diggante tamit tubaarkàlla tubaarkàlla ak ak waa Mbuguréen. Hmm. Gale maa mbay joojo fëri. dafa bari ci réew mi. wallaay Mbaye ma ko dee wax fi laay fanaan. dëgg la Mbaye. waaye rek ma ndokkal awa buuru këram bi ci kër gi. waaw Oumy Gueye gaar mi. Gueye baaru daam ceekum mi ci ko saas. Hmm. maa jigéen la ndeyam tudd. Hmm. Bintu la ndeyam tudd. Maguette Gueye la maamum tudd. ndeysaan Maguette ak aram mi jur Cheikh sa sunu baay noo bokk ndey ak baay. Guèye Barou Dame cee comité Gossas. ndeysaan baax lool. Hmm. yaru lool. Hmm. yiw lool jëliwuma ko fenn. ndeysaan. te tubaarkàlla lu ma jigéen lu ma jural rek. buur hmm. nga wala ngay lingeer. wallaay dëgg la kon Guèye Barou Dame moom tam maa ngi ko ndokkal di ko ñaanal macha allah papa kon sa kàddu gu mujj. waaw xanaa rek di am mbégte ak contentement. ak di la ñaanal nag jàmm. amiin Baye. papa ñaan na rek boo ko bul jooy nag di yàq émission bi billaay maa ko ñaan gay mbay <laughs> tubaarkàlla macha allah gis ngeen sama baay bi li mu def tàggool waaye xolam mënta wax ci man dara tubaarkàlla gale maa mbay joojoog ma sira lii doy nag ñaan tubaarkàlla pap aca marul waay moo tax bañ ne ne du delloo ma ngoone njaay déglu leen déglooti leen